gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi bil Mustafa bil Mustafa lil Mustafa lil Mustafa lil Mustafa lil Mustafa lil Mustafa lil Mustafa lil Mustafa wajjatu ma xasarafa lil Mustafa wajjatu ma خد صرفا لخيرنا إبليس وانصرفا خدمت باطلا باقي الفزاق ولإلهي كاس سعيدك ملكني المليك هو المليك هو المالك الذي لا تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لفي رمضان جزاء أجر الذي ما عنده لا ينفد وسنني ومخترع النفد خدمة خير العالمين خدمة خير العالمين أحمد علي تسليما كريم حمدا فرعت القلب ونسي طيبا وبمكاره لخير صعبا يسر خير العالمين العالمين علي تسليما يسر خير العالمين العالمين عليه تسليما مسير العالمين للمصطفى وجهت مالي خادم للمصطفى وجهت مالي خادم نفعا بلا مدرة نفعا خادم هو سفيع هو سجاح به مع سلمي والأوجاح محمد صلى عليه في الآل وصبي ومن والاه ما بلائي ومع أمرادي وبرداة خاد للأخراد نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليم حبيبي ربي خط له كليتي في علني وسري وهو لي خاد الولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفنيلا رفعت خدمتي إلى الماء سند ولسوى نساخ كل من فرد هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمد أبقى سامي كريم سمدي على النبي وسيلتي محمد أبقى سلامي كريم سمدي على النبي وسيلتي محمد على النبي وصلتي محمد أبقى سلامين كريمي سمدي يا لاح يا خادر يا مقتدر يا من إلا يجود يقتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فترة فوق صومي جهت بس الخسيد ساكرا لك به وقبل لي خطفا لك سنت الخسيدة تعيس كورا ولم تصل يا مالكي سكورا أكرمتني إكرام من ما سافعل وكلما أردت منك الفعل أعطيتني يا ربي من لدنك ذكرنا كي من فرديت عنك آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما فرديت عنك باركت لي يا ربي في الخروف وخير وجدت بالمحروف ملتني بكونك الكريم ما خادني تفسير وتكريم أعطيتني ما خل من ساق كلما مدامنا دري موت سلما كافأني من مالو كفن أعد بما لخير ساخ كل من جاد أكرمني بخلق والعام الآن ربي ولم يكن له كفنات ناجاني الله مكرم السماء تناجيا به كفاني الكمار وجعل الأكرم انفع الكلام وداري بخير راد للسرم أسلم كونتي الحسيدة خارعة العادة المفيدة يا خي يا خيوم سلم السلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام salli wa sallim wal taqabal sal karaam munna ala xaali isil xoofi bima yafuuqu san min maarufi linaasimil xurufi xaalidi rabaax yaa man kafaawu sal xuruuri wan nubaax حي يا خيوم يا مكرم يا هداك عبدك الخديم عبدك مرتجيا نيلا منى من عندك فاز الذين ناجاك عبدك الخديم عبدك مرتجيا نيلا منى من عندك ناجاك عبدك الخديم ساسرا مسلما على مسانسلنا يا يارا جمالم لولياي الله جفل ياي مصواب ياي منتخى ياي وليه الله جفل مكة دخوتي ساتر تسيا كار دو دو كوكويلاج ku laaj mu may la nga giiñal sëriñ Fallu xanniw la ayin ala fadi saadatika saalihina sëriñ saali woy ki ko jar kooka def alal maqaamaati ayin ala fadi saadatika saalihina sëriñ saali woy ki ko jar kooka def anglal maqaamaati wal ba'du mbukum julen mu xeebu turu wa di may mooy leeralaat li taxoon muy way sëriñ saaliw du bëgg siiw du alal du turu wu ñii tuddu lay sama yéene ma am mbégtem sëriñ saaliw dem naa ba sàggane way ngir weddi kaddu yi ni xas ak sa saboote wolof yiñ way sëriñ saaliw te xam lu naa dil siwaat naa namm saa xalima ngir xam ni man war na ma njukkal sëriñ saaliw ay gaa yi nañu farluwaan sul sang mooy ki fi gën te tiitaruwaat ngëneel maa yem sëriñ saaliw diine ji moo ko yeesal ay mbakke moonu tee gise ndop réew mépp mépp a gisoon xeewali sëriñ saaliw ku nekk am nga sëriñ moo xam ni mooy ki la doy man Cheikh Sarr suubu naa doy loo saaliw ku nekk am nga sa moo jàpp teg ko ca kaw man wàcce naa mépp mbër yéegal sëriñ Saaliw koo xam ni maa di sawaay bàyyi maa bis man bàyyi naa bépp waay waayoo sëriñ Saaliw doomam ya ñëpp ma doy ngir seen wañu yor ku génn ci ñoom danga naan kii moo di Serigne Saliou ma door a dem yesluwaat cacaat ma jox ko samay may mbir yëpp yam ci loxoom mu saam Serigne Saliou ma door a dem yesluwaat cacaat ma jox ko samay may mbir yëpp ci loxoom muy saam Serigne dëddul ngërëm naa ko tëggal ku xotti baax ko tëggal baax ka fesal ci saab galañ delloo njukkal Seex Murtadaam Sëriñ Saaliw bu dee ku baax ya yoo nga way ku xotti baax mooy gën yay ci way ko man way naa la tey Cheikh Murtalam Sëriñ Saaliw baax ya Saaliw bu dee siddiit day rogalaan ma xam ni mbër nga nan xalaat bambay samaam nga dil siwaat di caatu mbër ma saaliw bu dee siddiit day rogalaan na ñëpp def ni ñu màggal Cheikh Mourtalaam Saaliw bu dee siddiit day rogalaan ma xam ni mbër nga nan xalaat bambay samaam nga dil siwaat di jaatu mbër ma saaliw dee si diit day rogalaal ma xamee ni mbër nga nal xalaat ba mbay sa maam nga del si waar di bu dee si diit day rogalaal ma xamee ni mbër nga nal xalaat ba mbay sa maam nga del si waar di donnu nga jëm jawoon ca moom baax ak lewet ga wala ca moom yërmaanda jaak tab ga ca moom lépp a nga fi yow ngay saaliw Cheikh Murtada sun Serigne Saaliw dondu nga jëm jawoon ca moom Serigne Saaliw baax ak lewet ga woon ca moom yërmaanda jaak tab ga ca moom lépp a nga fi yow ngay saaliw man seex dama xamul keneen ku ni yow aw ma keneen bof naa fi yow dew ma feneen fu fi yow yaay muslimu man seex dama xamul keneen ku ni yow aw ma keneen bof naa fi yow dew ma feneen fu fi yow yaay muslimu seex murtalaam sëriñ sagal nga gaaya jibbulu te yow da nga yee ku ku ñëw ci yow nga fonk lool Cheikh Murtalam Sëriñ Saaliw defar nga gaaya lay dikkal na ñëpp def nii ñu màggal Cheikh Murtalam Sëriñ Saaliw defar nga gaaya lay dikkal lu baax nga xëy di leen digal tàggat nga leen boo leen digal ñu jëf ko roy nga saaliw Cheikh Mourtala am Saaliw defar nga gaaya lay dikkal lu baax nga xëy di leen a digal nga leen boo leen ñu jëf ko roy nga saaliw Cheikh Mourtala am Saaliw ku dëkke fekke sab jataay nga fóot xolam muy gën gi waay ka ñaala rang may médaay wat naa ni mat nga saaliw ku dëkk fekke sab jataay nga fóot xolam muy gën gi waay ka ñaala rang may médaay wat naa ni mat nga saaliw Cheikh Mourtada yaa defar ay mbakke yaa tax ma naw ahlu badar seen boor nga aw dëkkee nafar téereb borom ba saaniw ceex murtala ma defar ay mbakke yaa tax ma naw ahlu badar seen boor nga aw dëkkee nafar téereb borom ba saaniw yow jombu nga nelaw fajar lu jiitu sax julli ngay jóg di jàng kay sikar di roy sa bay ba saaliw Cheikh Mourtalaam Sëriñ Saaliw yow jëmm nga nelaw fajar lu jiitu sax fajar ngay jóg di jàng kay sikar di roy sa ba saaliw Cheikh Mourtalaam Sëriñ Saaliw sellal nga yow sellal sa jëf lu sellul it yow doo ca kaf say kàddu dëppoo naak sa jëf yaay murtada mum saaliw sellal nga yow sellal sa jëf lu sellul it doo ca kaf say kàddu dëppoo naak sa jëf yaay murtada mum saaliw man seex da sant naa buur ba yàlla buur defee ma far ànd ak sëriñ bu làq cëram ca max njabay ba saaliw man seex da sant naa buur ba yàlla buur defee ma far ànd ak sëriñ bu làq cëram ca max njabay ba saaliw daarul minan daarul alim yaa tax ñu bay di góob du siim cere ya ka fee ka xiim ataaya sant saaliw daarul minam daaru alim yaa tax ñu bay di góob di siim cere ya tey kafe ka xiim ataaya sant saaliw Seex Murtala yàlla na yàlla yokku say maqaama bi jaayi sumaatul xadiima yàlla na yàlla yokku say maqaama bijaayi sumaatul xaddiima ku dib jullit ku dib soppe ñaanale ma ku dib xarit ñaanale ma Seex Murtala yàgg lool te wér ku dib jullit ñaanale ma ku dib xarit ñaanale ma ku dib soppe ñaanale ma Cheikh Murtala yàgg loolu te wér waxab lana nuurun ala nuurayni nanga nu defal saadatu daarayni waxab lana nuurun ala nuurayni nanga nu defal saadatu daarayni إله فرجك يا رب لا إله إلا الله لا إله يفعل إله سينب سخنا بالا مام جاي أبو دار دار فال جاي لا إله إلا الله فالإله Seyna bo soxna balla jaay abo dar dar faal jaga lay lay lay faal ila la muridina jam ñi yaa leen di ginde lamp fal baabul muridina jam ñi yaa leen di ginde may nu mbaax may nu leero may ñu loo dootul nangoo may nu mbaax may ñu leer may ñu leer may ñu loo dootul nangoo ñoo ngi ñaan dellu ñaawaan yal na ñaan yépp bu nangoo ñoo ngi ñaan dellu ñaan yal na ñaan yépp nangoo wongam la naa noorun ala nuurayni danga nu defal saadatu daarayni yal na ñépp am jàmm ñoo ngi ñaan leen fi barkeelu lépp yàlla na ko yàlla nangu te yàlla sotti ko ci barab bi yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mourtada amin te yàlla boole nu ko moom sëriñ Saalix di ko ñaanal sa borom di ko sa borom yàggal ko fi lool te mu ànd ko wér ñaanal ko liggéeyu maamam bii yàlla na ko àggaleeg lu kawe njottam te nu ko ànd kook moom ci barkeb way juróom mu tedd wa Cheikh Salihu Mbacke ñu ngi ziar waa daayira bi ñëpp di ziar sunu jëwriñ sëñ Jiili Njaay ak mboolem waa commission culturelle gi yëpp bàyyiwun kenn di ñaan yàlla minu may ñu fekke ren fekke woon daaw fekke waat ren yàlla nu yàlla may ñu fekke ko at yu bari ci barke Cheikhul Khadim te kenn bañ koo manqué ñu ngi baalu ñëpp àq